mais li ma bëgg mooy ñu xam mooy au Sénégal institution ñu ngi dox convenablement. ah mais le président moo ne woon les décisions de justice dañu ko war a respecté. décision de justice loolu la waxoon. dans l' affaire Sonko. mais dans cette affaire là ak les fiches et autres. ça ça ça devient autre chose ah. nekkul direction générale des moo ko war a jox fian moom moo ko war a jox parrain moo ko moo ko war la cour suprême direction générale des élections li moom mooy docteur yaa ngi ci liste bi say parrainage nekkul ci liste bi du la jox c' est c'est du ressort du de la de la, de la euh, Cour suprême donc c'est à ce niveau-là Sénat également waxuñu ne parce que le Sénat waxuñu ne le Sénat a l'obligation le Sénat peut substituer la ñuy wax gestion des c'est le vrai pouvoir du troisième groupe il peut il peut ne donc aujourd'hui bu ñu nee Sénat dafa war a jël ay parrainage parrainage jox ko Ousmane Sonko Sénat mun na si mun na mën na utiliser ses pouvoirs mais c'est pas une obligation c'est pas une obligation Sénat mooy xool ba xam ndax li dëgg la femme yoo xamante ni ay tintamarre ay waxu. non mais attendez bu wax loolu. par rapport aux dernières nominations. aussi euh, maanaam li ñuy président Sall remplacé ña fa nekkoon. dernière nomination la tey jii quand je vous parle de Cheikh Awa Balla yaa ngi may woowee léegi Awa Balla Cheikh Awa <laughs> <laughs> mouvement de soutien boo xam ne en faveur du président la. waaw qu'est-ce qu'il a à faire là

peut-être bi muy créer mouvement il avait le droit de créer son mouvement politique. aujourd'hui mais ku mel noonu mën nañu ko yóbbu fu war a fu war a àtte. day tey xel mais attends day tey xel. ci lan la nekkoon bi mu koy créer bi muy créer mouvement ci lan la nekkoon. ci lan la nekkoon bi ñu koy créer mouvement est-ce que boobu juge la est-ce que bu ñu conseil constitutionnel da ngay nekk si dara tey ëllëg nga nekk si leneen mon cher man li ma gëm mooy même tey bu nekkoon docteur tey sax dafa bokk tey pouvoir bi tey mais ñu am ci moom yaakaar xam ne kii mën a doxal li ñu ko li ñu ko dégg nañ ko bàyyi mu jiiti. mais lu l'opposition def attraction sur tout. nama nañ diw rek c'est normal aussi ah. nama nañ diw rek duñ xam ba xam sax lan la diw kii bi commencé critique critiquer non pourtant loolu pourtant mën na créer mouvement nekkoon mi la aujourd'hui tey moom mu am yaqin tey si sabale ngi nii si sabase ngi nii ku ko nommé ku ko nommé bi mu àtte lan la àtte en défense de l'état non attends non waxuma la ko nommé ah loolu nga wax da dama ne si fan la nekk ku wéebu jigéen sor ci état la nekk mën nañu ko change à tout moment ministre de la justice la dépendre mais demal dañ ko oui comme tous les juges ah. il fallait bien quelqu'un à Ziguinchor. waaw je sais mais demal bu demee est-ce il a la à la. solde du pouvoir à la solde fii mon cher les hommes <laughs> docteur les hommes son libres <laughs> les hommes sont libres mhm. ñooy egg seen maison comme ce droit président xam bu la nommé yow yaay jël sa indépendance wala yaay def loolu président nommewul kenn je pense pour mu maguy

fu mu toll ak lan moo ci tag ak lan la war a continuer il est le premier ministre donc loolu bu ñu ko ko bañal il fait des tournées nag yow boo ko tuddee politique ak yooyu ah si boo demee say nit say militant ñu dajee yow sa roxale waxtaan ak yow bu la neex tàcc fecc bu nekkee amul militant yow tàcc nag bon kooku moom baa ma ñëw ci àll